waaw dañ ñëwoon tey nag pour euh, taxaw taxaw tànki sénégalais d'abord citoyen euh, yoo xam ne dañu liberté daf ñu daf ñu soxal taxaw tamit tànku député parce que ci biir ñi ñu jàpp suñu suñu suñu ñaari naataango dañ dañ leen ci boole muy maam jaara Fam ak Déthié Fall ñu ñëwoon nag pour soutenir ñëpp parce que loolu mooy euh, loolu mooy coobare Euh, député ndaw askan wi buñ la buñ la buñ la falé pour nga togal askan wi fu askan wi amee coono da fa wara a donc dañ yakar ne que mm, arrestation yi arrestation arbitraire la manam dañ leen japp ci loo xam ne tegewul euh en tout cas ci biñu déglu interrogatoire yi ñom ñëpp ñi jotta jall jàll ñëpp 84 ño wara jall mais ñi jotta jall jàll ñëpp dañu nanguwuñu liñ leen tuumaal dañ nek ñom bokkuñ ci manifestation wuñ xeer te euh, euh, fekkuñ leen ci ay rassemblement bu ñu xoolee par exemple Déthié Fall ñu ngi ko jàppee buntu siège am amuloon benn rassemblement maam Diarra Fam ñu ngi ko jàppee buntu kër Barthélémy Dias te gendarme yi ñoo ko bàyyi mu jàll ba pare mu ngi àndoon ak ñaari doomam kenn ki am 15 ans kenn ki am 13 ans ñu ñu jàpp ko bàyyi fa xale yi. Euh, ñeneen xalé yi ñu tamit ñenn ñi ñu ngi leen jappé Liberté 6 ñenn ñi ñu ngi leen HLM ñenn ñi ñu ngi leen jappé Point E amu ci kenn kuñ ci Place de la Nation fa nga xamné lañ nous avons euh, manifestation donc ñu am yaakaar que ni juge bi xamna droit xamna loi té comme déglu na leen ñom ñëpp ñu ne ñoom que nous leen tuumaal dañu nous ne dina leen bayyi ñu dem bayyi ñu dem parce que Sénégal jamm la soxla non seulement manifestation droit la dañ ko bind ci suñ constitution ñu ñukoy téré ba paré nak légui di japp ay xalé yu ndaw yo xamné ay ñaar fukki at ak ben yi ñuy ñaar fukki at donc lool dafa ñaaw dafa ñaaw ci dëkk bo xamné day oote démocratie ñuy euh, oo nag euh, njiitum réew mi di o gouvernement bi di o euh, autorité yi ndax ñu sorti ci affaire bi ndox mu sedd nit ñi dellu seen biir kër ni ni ni ni ni ñiy liggéey war a de continuer defi seen vraiment di ñaawlu bu baax a baax euh, recul démocratique bi nekk di am Sénégal di ñaawlu bu baax a baax non respect de liberté yi nga xam ne ñu koy constater de plus en plus